salaamaaleykum euh, mbokku téléspectateur yoo euh, Yegle TV ak ba képp ki nga xam ne yaa ngi safoo Yegle TV ñu ngi fii tey euh, ci Padoa Bulldose te bu ñu nee Padoa Bulldose suñu xel lépp day dem si Cheikh Gueye mi nga xam ni médecin traditionnel la xam ni moom day faj maanaam bu lay fajee yu bari te day faj affaire yu bari bari yoo xam ne mi ngi fi moom lañ seet si tey pour waxtaan ak moom may la ñu tuuti nu dugg ñu wax moom maa ngi ñëw léegi la ma wax fal sama caméraman mu topp ma Fallou topp mu ñu dugg ci biir. waaw comme ni mu leen ko waxee woon rek li ñu ngi fi dugg ci biir jàkkaar ak euh, Cheikh Gueye mi nga xam ne moom moom xijaam euh, herbe ak euh, herbe moom la ñuy waxtaanee tey mi ngi toog Cheikh maa ngi lay nuyu. maa leen di fay yéen ak mboolem équipe bi ak waa Yëgle TV ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy yëngatu di ànd ak yéen ci seen liggéey di nuyu tamit askan wi di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum bu ne kan mooy Cheikh Gueye. waa Cheikh de wax dëgg yàlla maa ngi baaxoo fi ñu naan Saalum foofu mooy suñu cosaan waaye Padoa bii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee donc nag euh, yore fi benn euh, genre clinique mun nañ ko wax wala boog yore fi benn genre centre boo xamante ne liñ fi yëngatu ci wàllum faj la centre bi nag ñu ngi ko tuddee xijaama herbal noonu lañ ko duppee euh, jubluwaay bi moom mooy faj ci mbooleem xeetu feebar yi waaye nag fekk ci fajum naturel la maanaam dinañ fi mocc nag dinañ fi def li ñuy wax xijaama ay ventouse waaye tamit dinañ fi joxe ay garab ci wàllu ay xeeti feebar yu bëri lu mel ni ki ndoxum cité ak tension mais garab yi ñu fi joxe yëpp ay plante la yoo xamante ne fii lay fii lay saxee ci ci gox bi wala boog ci Sénégal lay meññee ay plante naturelle la yoo xam ne yenn yi mën na doon ay xas yenn yi doon ay reen yenn yi doon ay xob mais yooyu la ñuy jël Mexico di ko jox nit ñi ci ay dosage yoo xamante ne ñoom buñ ko respecté yàlla mën na leen ci defal tawféex fii dafa bëri plante kon maanaam yow doo joxe médicament yenn ay comprimé yëpp doo joxe dara. déedéet maanaam garab yi ñuy joxe bokk ci wàllum comprimé parce que loolu du suñu domaine u liggéey ñun ci li nga xamante ne moom la ñuy joxe ay garab mooy gàncax maanaam li ñu dem ba tuddee sax médecine bio donc donte ne norme bio yi sax respecté wuñu ko te norme bio sax dafa compliqué waaye li nga xam ne wàllum gàncax la te maam doon ci faju muy ay xob ak ay reen ak ay xas yoo xam ne maam faju na ci ba wér ci ay jàngoro yu dul jeex bon yenn saay sax ñu wax ci wàllu dosage waaye maam tuddee woon na am defoon na dosage ba noppi maanaam li ñu naan ngëpp wala ñu naan comp wala ñu naan nga jël ci ay ñetti takk ak ñeenti takk loolu noonu yëpp daanaka ci loolu kese lañuy ñuy yëngatu maanaam lépp li ñuy joxe ci ay garab daal base bi ay plante naturelle la soit nag dañ koy wal jaxase ko wala ñu jox ko nit ki aleta l'état ni mu jógee ci garab bi noonu waaw. tey euh, fan la jàngee liggéey bi. ah wax dëgg yàlla de lii xëy na dox naa ci kaw suuf waaye man nag sama njàng dëgg euh, circuit académique laa jàng sixième laa jàng ba maanaam seyi ndàdde ba terminal maa ngi defee sama cycle secondaire yëpp biir lycée Lamine Gueye fa laa amee BFM fa laa amee bac maa woon université Anta Diop fac droit bi ma fa jógee nag jàng naa informatique jàng naa gestion jàng naa comptabilité loolu mooy li nga xam ne mooy sama circuit académique dafa am nak lo xamne xeyna nit ki ci biir euh tukki na dem na ci ay réew ndax fajj depuis bi may nek xale daf ma yag soxal donc nekkon na ci ay réew lu melni ki réew yu bari dem jàng ji alcorane dem jàng diine waaye ci biir loolu yëpp di gëstu di gëstu di dajeek ay nit yoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci lenn li ba yàlla def ñëw dem ci ay circonstances yu yéeme dem jàng ji faj ba loo ci xam ne dem nañ ci ba Asie dem jàngi ji ko après nag euh, yàlla def li muy def jubluwaay bi yëpp tamit si njàngum faj beeg loolu gis ne askan bi ñu bëri feebar nañu ñi ngi faju ba sonn di dépenser xaalis bi dul jeex ci loo xamante ne xëy na yenn saa yi duñ ci am résultat escompté yi te fekk lu ñu jege loo xam ne mu ngi sax ci suñu fuuf tànk yi moo koy saafara te buñ ko jëfandikoo yàlla dimbal leen donc loolu lañu gëstu ñëw nag fas yéene cee jàppale askan bi jublu ñu ci business jubluñu ci dara waaye jubluwaay bi dëgg-dëgg mooy naka la kenn ku nekk di ànd ak sagoom ànd ak wéram mën a liggéey li muy liggéey mën cee jaamu yàlla te fekk mi ngi ànd ak euh, maanaam li 100 pour cent de ses capacités. tey euh, Cheikh na ni tey euh, faj dalaa neex da ko mës a bëgg pourquoi pas def def jo médecine directement nga ñëw tey ci wàllum gàncax. waaw parce que man peut-être mon orientation jàng ci circuit académique parce que fi ni ñuy médecine mom moy euh, peut-être amna circuit bo xamné moy circuit académique bi dem ci université yi fac médecine jàng ji yenn yi peut-être loolu bokk na ci li nga xamante moy mooy yoon waaye euh, dafa am benn erreur bu ñuy def masalan du li ñuy jàng ci circuit académique rek la ñuy wooyee médecine ci misal tay buñ ne un alphabet ko xamantene mën na bind mën na lire moy toute personne bo xamantene ci lak bu mu munti don mën na ci bind mën na ci lire mais erreur bi ñi def fi moy dañuy jàpp ne ku jàngul français do alphabetiser wu te fek ki jàng arab mën ko lire mën ko bind dafa dafa alphabetiser donc ci walu médecine deug bo démé ci sunna dafa am sax ay téré yu ñuy woyé la médecine prophétique tibbu nabawi ñii nga xamante ne tey ñoom ñoo jiite lépp luy euh, maanaam wàllu faj ci médecine bi ñuy jàng ni ci université yi mm. comme par exemple ki ñuy woowee Avicenne tuddul Avicenne Ibn Sina la tudd arabe la woon te dafa bind ay téere ñëw tuddee ko al qanun fi tibb maanaam li ñu wax le canon de la médecine képp kuy jàng ci université te pourtant moom bi nga ko bind te ñun loolu dañ koy jàng ci daara ji da nga koy jàng ci da koy jàng ci arab xam lan mooy yoonu faj lan mooy théorie des quatre humeurs xam nit bu feebaree nan lañ koy identifier nan lañ koy diagnostiquer fekk toogoo fii gars yi toog te itam dafa am beneen paramètre bu ci nekk mooy médecine moderne bi c'est-à-dire ça ne prend que des des bu nit dofee bu ko yóbboo fii dalal xel mënuñu def lu dul jox koy antidépresseur ak ay nangam te fekk ci ndof googu noonu mën na am rabu ko dugg ñun Sénégal lañ dëkk xam nañ loolu donc ñun nag loolu nit ki dafay ñëw ñu mocc ko ba jàpp rab bi dindi ko ci yaram bi dindi njabar yi mu ci def waa ji ne cocc dem te du naan comprimé duñ ko du jël antidépresseur donc man ci sama circuit académique wàllu comptabilité gestion informatique laa jàng mais ci wàllu faj nag moom dama dox dugg naa ci sous amul dëkk bu ma demul fii ci Afrique de l'Ouest nekkoon nañu asi dem nañ fu nekk ci àdduna bi dajeek ay nit ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci te itam fii ci magum réew mi am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na ci wàllu fajum cosaan yàlla ubbi na leen si ñi ciy def loo xamante ne lu yéeme la ñoom it jaar nañ ci seen loxo jàng nu ñuy fajee ci ay plante jàng ni ñuy fajee ci mocc mais tamit sëgg ci téere yi gëstu parce que ba tey jii nii gëstu googu ñun ñu ngi ci ñu ngi ci sëgg téere yi di gëstu parce que tout le temps il y a des changements amna affaire yu évoluer amna yo xamantene ay raccourci la ci walu faj yo xamne dañu yaatal dal jël paramètres yépp en compte ci lépp lo xamne walu wàllu la bëri na ay fièvre yo xamne c'est des maladies qu'on considère comme cliniques fekk ay fièvre yu mystique da ci rax jël na ay fièvre yo xamne c'est mystique dafa am ay conséquences yu clinique ci yaram doomu motax ñun dans le traitement ci biir consultation bi ak yépp dañuy jël en compte lépp lo xamantene luy dox ci yaramu nit ki la benn misal rek bu ndaw buma lay jox dafa am feebar boo xamante ne ci wàllu diagnostic ñu ngi koy hémorroïde bon nit ki symptômes yi li muy doon mooy da ngay gis ne day am ay ballonnement di am ay constipation di am ay bourdonnement de ventre mais am na ñoo xam ne tey seen hémorroïde dañ koo faja faja faj ak garab yi nga xam ne dañ ciy faj hémorroïde bon ci wàllu hôpital muy wér mais ñoom faj nañ seen bos ba sonn te wérul fekk ñoom la ñuy wooyee hémorroïde en fait ce n'est rien du maanaam ay conséquences la mais source bi mooy njabaru lekkatal lañ leen jox parce que njabar buy nit ki lekk même symptôme il lay am ballonnement bourdonnement de ventre à constipation boo ko boo ñëwee pour une personne boo xamante peut-être elle est purement cartésienne bu defee diagnostic danaan kii dafa am hémorroïde waa ji dina jël garabu hémorroïde ba sonn du jàll mais gis nga waajooju bu jëlee benn kuddu lay duur ñu moccal ko ko alxuraan mu baxal ko mu naan ko tey bu soobee yàlla da koy yebal mu dem toilette bu demee dana gis ne loo xam ne wuute nag ay cabinet normal njabar boobu toj ci yaram bi nga gis ne hémorroïde li mu doon woowee hémorroïde dañ mais nag loolu c'est-à-dire ñun moo tax ma ne dañuy ubbi paramètres yi dañuy jël en compte tout ce qui est symptôme normal paranormal mystique physique lépp la ñuy bàyyi xel dans la dans la consultation de la personne kenn ku nekk nag ak kaawam kenn yamu ci ak sa morom. tey euh, maanaam tey hémorroïde tey boo ko doon faj si ñaata temps nga koy faj. waa xam nga euh, wàllum jàngoro dafa am benn critère de base bu ñuy jël ci nit ñi moom mooy nit ku nekk ak ni mu bindoo dafa am garab yoo xamante ne dañuy compatible ak nit. am garab yoo xamante ne dëppoowul ak lii parce que hémorroïde benn cosaanu feebaru biir la mais tamit dafa am yoo xam ne ay conséquences yu muy jur am na ñoo xam ne seen hémorroïde dafa leen jëru ay reflux gastrique am ñoo xamante ne da leen dem ba jur leen problème estomac ñii dafay dem ba mu génn benn picc ci suuf moom la ñu woy hémorroïde interne kenn ku ci nekk nañ koy fajee ak traitement am doon benn dafa am nag ay garab yu ñu ciy joxe da nga gis koo xam ne bu ci amee ñaari paquet ci garab yooyu day ñëw ne la hémorroïde bi ci dara parce que boobu dafay nekk ci début hémorroïde mais am na ñoo xamante dinañ ko topp lu bari parce que hémorroïde dafay jur ay infection ak ay inflammation yoo xam ne day tax bu demee toilette day saigner fu mu toll day gazé fu mu toll lu mu lekk bala moo res day def ay heure heure heure donc par rapport ak nit ki degré faible bi fu mu toll ci moom c'est-à-dire loolu en fonction de loolu la temps bi di jël donc am na ñoo xam ne c'est sur 3 mois am na ñoo xam ne c'est sur 1 mois am na ñoo xamante ne dañuy suivre un traitement parce que hémorroïde bi yàq na lu bëri ci seen paroi intestinale ba nga xamante ne li koy réparer du gaaw mais garab yi du nekkatul foofu faju mais garab yi daf koy jox benn maintien benn équilibre pour muy mën a lekk di reesal et puis mu nekk à l'aise ci ci ci kiiwam mais pour tënk c'est-à-dire euh, benn temps boo xam ne ci la moyenne bi daal c'est sûr à peu près entre un mois deux mois jëm ba trois mois pour une personne boo xamante ne xëy na amul ay ay ay dérapage yu graaw ci conséquence su feebar bi. fii gannaaw hémorroïde yan yan ak lan ngay faj yan feebar ngay faj tamit. waaw dinañ faj lu mel ni ki ay ndoxum city. dinañu traité li nga xam ne dañu am ay tension buy yéeg wala buy wàcc wàllu diabète tamit dañ koy traité wàllu ay fibrome comme jigéen ñi ñuy am di am ay kyste ay myome nga xam ne dans la médecine générale euh, xamuñu ci lu dul opérer pour la plupart à part peut-être bu nekkee ci début bi nga xam ne dañuy jox yu koy seeyal am na ay garab fii ci plante yi yoo xam ne jigéen bi dañ ko koy jox mu koy baxal di ci toog te itam day seeyal loolu yëpp ay problème règle douloureuse ay kis, ay infection ay infertilité loolu yëpp dañ koy faj ba ci sax li nga xamante ne wàllum góor la ay azoospermie ay yenn saa faiblesse sexuelle ay impuissance sexuelle yooyu noonu yëpp daal ay feebar yoo xamante ne peut-être yenn yi ay conséquences la source bi nekk leneen mais dañ koy topp après la consultation di jox nit ki traitement mu koy jël mbëri na daal xeetu feebar yi ñuy faj fii nii waaw. tey dañuy waxtaane tey impuissance sexuelle ak faiblesse sexuelle la ñuy waxtaane tey ñaari ñaari ñaar yooyu bokk na. waaw impuissance boo ko déggee mooy nit koo xamante ne ci wàllu sëy dafa tële mooy dafa tële mu am nag lu ñuy wooyee faiblesse faiblesse nag moom lañuy ñuy néew kàttan léegi ñaar yooyu ba tey duñu benn c'est-à-dire kii kàttan a ngi fi mais dafa néewle kële nag moom daanaka dafa tële ñaar yooyu c'est-à-dire ay feebar la yoo xamante ne dafay dal góor ci néegu sëy Euh, li nga xam dana nak li ci jëk mom moy xam source bi lan la parce que mag ñi dañuy wax ñene ne lu ñu xam cosaan bi rek pour fayee ko da fay yomb tay tey disjoncté bu fekkente ne man bugguma tay ventilateur daw fi bugguma télé bi daw bugguma dé ele may nek di fay bi di fay bale damay dem ba ci disjoncteur yi ma couper courant bi bu ma couper à la source lo bëss bëss bouton dara du tak naka non tamit bu ñu remonté à la source à la disjoncteur bi da gis tout fonctionne normalement donc yooyu dafa am lo xamné ay antécédents lay doon ñenn ñi am na ci ñoo xamante ne problème stress bu bëri daf leen di jural faiblesse sexuelle maanaam ak lu accumulé xalaat bu bëri boo xam ne dafa accumulé ci xel bi wala ay yitte wala benn pression bi day dem ba sax dafay répercuté wu ci seen sexualité ñeneen ñi dafa bokk ci li leen koy indil mooy ay infection urinaire infection nag ci góor ni mu yombee ci góor noonu la yombee ci jigéen lii koy waral mooy tey mun nga dugg ci ay toilettes tour ndox ba pare ndox moomu taaju nga raxasu ci mu jural la infection te pourtant dafa taaju foofu yàggu fa sax xëy na mun nga fóot sa caleçon weer ko ci ligne bi poussière bi koy laal wala pollen mu tegu ci kawam nga sol ko mu jural la infection maanaam boppam li ñuy woy masturbation dafay dem ba day tax sidit yi day flasque léegi nit ki maanaam dafay tële ci taxawal taxawal bu normal naka noonu tamit bokk na ci li koy indi moom mooy problème mu rab wala problème mu njabar parce que takk xala ñun ñëpp ku xam ku xam ku ko cosaanoo Sénégal tuuti xam ne xalalu am la maanaam nit yan saay dinañ ko liggéey takk ko ba nga xamante ne day tële wala sax mu mu mu néewle kàttan nit tamit maanaam ko an faru rab dina topp wala coro rab boog laa mën a wax dina topp góor da koy sànni njabar ci naq bi en général kooku sax daf lay wax ne man damay jënt di sëy lu bëri donc loolu ay njabar yu coro rab di sànni ci naq bi la dafay fas sidit yi nga xamante ne moom mooy sidditu sëy ci ndigg li la koy fasee jëm ba ci naq bi day tax waajooju tamit fu mu soxlaa boppam yan saay day teel a yegg wala muy gaaw a daanu wala yu demee noonu ñetteel bi ma fàttee wax moom mooy éjaculation précoce parce que boobu tamit wuute na ak faiblesse

te fekk du lu mu tey wala mu néew kàttan déedéet mais yëg-yëgam maanaam moo nekk à de peau dafa yëg-yëgam moom moo fort ba mu ëpp yooyu noonu yëpp nag cest à am na ci loo xam ne thérapie psychologique la dañuy jàngal nit ki mu teguwaat ci yoonu sëy maîtriser ay sansam am na ci yoo xamante ne dañuy jox nit ki ay garab mu koy utiliser am na ci yoo xamante ne dañuy dimbali nit ki ci lu koy teggil stress am wala maanaam mu am benn cure wala ak ay plante tamit en même temps yoo xam ne da koy jël te plante yi ay plante naturelle la fii lay saxee ci réew mi gàncax gi kenn ku nekk c'est à portée de main donc mën koo utiliser pour dem. tey yooyu noonu yooyu yëpp nga wax tey tey tey tey seen saafara tey lan waaw wàllu wàllu comme par exemple li nga xamante ne saafara yi dañ koy diviser peut-être par ay étapes donc am na ci ñun suñu faj lu ñuy wooye ay ventouse ventouse moom la ñuy wooyee xijaama ci wàllu téere ventouse yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci àdduna bi léegi dafa am ay dañ lay expliqué ay point masalan hémorroïde am na point bi tension am na point bi problème cardiaque am na point bi mais dafa am ay point pour lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu sëy maanaam muy puissance sexuelle muy éjaculation précoce muy lépp ay point la yo xamante dañ koy tek ci ndunkurum bi ak ci bas ventre nit ku góor ki ak ci cuisse point yoy noonu bo démé ci internet sax nga xol ko dang ko fay gis lolu ben méthode la pour faj lolu mais méthode mais méthode yi dafa man damay wax né man personnellement Cheikh dama ci utiliser ben complémentarité manam du ben rek lay jël masala nit ku ñëw dima jambat yoy dina fexé ba mu def ay séance de ventouse dina fexé tamit ba ci katanu yalla mu jël ay garab parce que dafa bokk tamit ci li ma fàtte leeral sànq mooy lu ci ëpp nag ci wàllu faiblesse ak ci wàllu éjaculation précoce ak ci wàllu impuissance li ci ëpp ci li koy indi gannaaw yi ma cité nii moom mooy ndoxum siti te loolu mooy feebaru askan bi ndoxum siti bi ngay dégg ndoxum siti nag da ngay dégg ku loo ku baax ku lay wax naan la euh, man damaa faj sama siti ba sonn waaye wérul siti du feebar siti maanaam siti du feebar nit yi damay dégg feebar la. waaw c'est loolu waxin la kenn du ko dàq mais feebar mooy luy wér ci foofu tam ma profitoo leeralaale ne doomu aadama booy dox mu ne la feebar bii du wér loolu tegg ko foofu parce que ñun suñu suñu pas-pas ñun ci wàllu jullit nanguwut loolu yonte bi sallallahu alayhi wasallam nee na mbooleem jàngoro yi yàlla wàccee wàccee na li koy saafara ba mu des màgget ak dee bu ma déggee ñu naan tension du wér diabète du wér loolu lu foo la xëy na gëstu nit ki moo ci yeggul mais li du wér mom loolu amul une maladie incurable n'existe pas dee ak màgget rek ñom ñoo dul wér. dañu dañu seetlu léegi que bu par exemple bo né diabète bo tension dañu né ni mënu mënuñu ko soit da nga fa ngay jaaree après yalla jël sa bakkan c'est-à-dire da nga koy da nga koy quoi wala que ce soit muy diabète wala muy euh, tension waaw. wa légui xam nga euh, toujours moy li ma la doon wax rek dafa am loo xam ne bu ñu delloo ci source am dafay yomb ci ñun pour ñu comprendre mbir mi ni mu toogee tay boo diabète tay dans la médecine générale ci ñun li ñu xam fu ñuy naté diabète mom moy taux de sang taux de sucre bi nekk ci sang bi da ngay ñëw ñu jël Accu-Chek wala yu demee noonu la ne la sa suukar yéeg na. garab yi ñu lay jox tamit pour mu réguler pour la plupart sucre bi ci sang bi la. mais bu fekkente ne de toi à moi ñi wax ci nit ku xelu mais taux de sang bi yéeg ci sucre lool conséquence lool c'est pas une cause. lool conséquence manam dafa pancréas bi mo sécrété wul insuline bu doy ci kaw loolu sang bi manam taux de sucre bi fa nek beuri donc man su may normalement du ma conséquence man cause laay faj ñom nak demal nga xol mboolem jabet yi ñuy garab yi jox diabétique mais c'est pour régulariser moy réguler insuline bi nek ci yaram bi ak yu demee mais insuline dafa am lu koy sécréter amna ay garab yo xam mi ngi sax fi suñu gannaaw ci gàncax yi fay faj pancréas ba mu wér légui yo bo amé diabète sa pancréas sécrété wul insuline bu doy ba sa taux de sucre yek ci sa man ma jox la garab bu faj sa pancréas ba mu wér yow diabète bi wér na wala wérul mais jeex na léegi nag c'est-à-dire dans la médecine moderne ñi baal ma maanaam li ñuy def mooy ay calmants lañ lay jox on te des choses yoo xam ne day réguler ce taux de sucre dans le sang mais loolu du problème loolu conséquence la problème bi mooy pancréas bi naa ko faj te pancréas bi ay garab a ngi fii yoo xamante ne yu simple la nit ki da koy jël mu détoxifier ko wéral mboolem jàngoro yi fa nekk pancréas bi di joxe insuline bu doy nit ki wér na ci diabète moo tax ma ne la feebar bu dul wér amul nit ñi loolu ay croyance yu ñuy def ne la non tension à vie ngay faju non à vie ngay calmé wu ok luy réguler rek lañ lay jox mais am na loo xamante ne da koy faj même ci wàllu ventouse yonte bi sallallahu alayhi sallam dafa wax mu ne na ngeen dindi la surplus de sang mort maanaam ay toxine ay dereju dee bi nekk seen yaram lu jiitu mu leen di ëlëb ëlëb boobu mooy baatu submergé borom xam-xam yu bëri ni ñu indee ni ñu firee baatu submergé boobu noonu moom mooy hypertension artérielle wala ay AVC wala yenn xeetu sax maladie yi nga xamante ne c'est chronique ay ay ay ay ay ay je dirais problème cardiaque ak yu demee noonu wala muy muy jur ay paralysé donc tant que nit ki mi ngi détoxifier yaramam du yegg ci taux bu toxine boobu noonu di ko submerger ba mu koy jural yenn jàngoro yu chronique yi donc mooy li ma la doon wax sànq rek pour revenir à ce qu'on disait maanaam ndoxum city du du fièvre ci yaramu nit la bok ay bactéries la yo xamantene dafa bokk ci sa deret légui bactéries yooyu nag dafay am ay réactions allergiques par rapport à l'alimentation par rapport à l'environnement et par rapport aussi au cadre de vie manam tay, am ñam yo xam bu ko nit ki lekkee man da gis ñoo xam buñu bu crevette rek mu jural len yenn mu ñu seen yaram di foot. am ñoo xam buñu bu ñu lekkee gerte bu bëri dafay def noonu am ñoo xam ne bisaab la leen koy def am ñoo xam ne meew kenn ku nekk ak bosam loolu ndoxum siti la mais réaction allergique la beneen bi mooy am na ñoo xamante ne yenn tissu yi bu leen laalee da gis ne day day dafa am lu muy jur seen der yi day commencé di lii am yenn produit yi bu ñu ko laalee surtout yenn parfum yi am fragrance da nga gis ne dañu am ay éruption cutanée kenn ku nekk nag ak sa ndoxu siti fi mu kii day damm karaw gi kii muy xasan bët bi kii muy ruux nopp kii mu defal ko ay heure kii mu mu jural ko ñàkk ngóore bu dee jigéen mu jural ko infertilité bu am na ñoo xam ne day jàpp seen yax yi ci tubaab yi ñu koy arthrose wala arthrite wala yu deme noonu ndoxum siti kese la problème mu nerf boo gis problème mu yax boo gis problème musculaire bu chronique boo gis à la base ndoxum siti la moo tax siti kenn du ko faj ba mu wér siti dañ koy équilibrer ci yaram bi lu tax mag ñi doon am ay ñaq temps parce que loolu pour mu évacuer surplus bi nekk seen yaram la tant que mu ngi équilibré am na yenn feebar yoo xam ne doo ko dégg mukk sa yaram bu taux bi jogee nag nga gis mu commencé yaram bi saa yoo sango ba pare ngay xasan ngay fet-feti wala sa tànk yi di tàng wala nga gis sa xar-xaru tànk yi muy génnee lu weex loolu yëpp ndoxum siti moo koy def don ndoxum siti boobu noonu yenn saay dafay yóbbu nit ki ba téye ay sidditu sëyam moo tax ñun dans le traitement su fekkente nit ki dafa am ay problème impuissance dafa am problème éjaculation précoce dafa am je dirais problème faiblesse sexuelle dafa bokk ci garab yi ñu koy jox à la base moom mooy garabu ndoxum siti garab bi ndoxum siti bi ñuy joxe nag c'est un mélange à peu près lu tolloog ay 5 ba 7 reine yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy interagir ci ndoxum siti dañ koy jox mu koy infuser ci ay doses yu normal yu yam deful dara mu koy bu en même temps dans le traitement ci siti defal ko la doon wax léegi-léegi defal ko ay pour détoxifier zone yi nga organe yi nga xam ne ñoom ñoo concerné lépp lu jëm ci wàllu sëyam ñetteel sexotonus beneen bi mu ngi tudd erec booster ñaar yooyu yëpp ay garab la ay céréales ay sunguf lañ koy produits naturels nit ki bu ko balaa suba kay mu woowaat la ne la sëñ bi li nga jox lan la te du question loo xamante ne day jël nit ki da koy jël mu koy dope comme yaramam di tàng wala fu mu toll di excité déedéet mais moom li muy def moom mooy dafay purger dafay nettoyer tout ce qui est appareil urinogénital même rein yi sax da koy nettoyer ba mu set day raxas lépp maanaam lépp loo xam ne lu fas woon da koy ni lépp loo xamante ne irrigué wu woon normalement da koy defal irrigation bu normal noonu daal la la la bagage yi tëddee. non sëñ bi kon yooyu nga wax noonu yooyu boo paree nga jox ma ci moom a waaw loolu dara macha allah. waaw tey bu ñu waxtaanee maanaam ñu waxtaanee si wàllum faiblesse sexuelle ba léegi. Mhm. loolu la ñuy waxtaanee ba léegi. Mhm. tey yooyu aussi koo xam ne ñëw na ci yow tey. Mhm. nga ne man dama am euh, sama ngóor dafa euh, kii. dafa wàññeeku. tey loolu tey boo ko nu faj. ñaar tànk kay faj. waaw nit ku ñëw di ma di ma jàmbat loolu li may njëkk def mooy damay dalal xelam ba pare. parce que lu stressant la góor tey moom këram rek la xam maanaam tey maanaam buñ ne néegu sëy dafa am objectivement lo xam ne motax li ci dess yeb ay secondaire la mais nit ki bu ñëwé en fait li ñuy njëkk def ñun moy dañuy dalal xelam ne ko li c'est-à-dire c'est lié c'est juste une conséquence de lo xamante nit ki mu ngi koy dund soit ci fièvre parce que tay hémorroïde bu nit ki di am manam ki am bép fièvre biir tamit fay jur da fay wañi ngor nit muy hémorroïde muy ulcère muy problème gastrique muy ay ay problème ay colopathie yooyu noonu yëpp parce que góor léppam ci wàllu say siddit la te siddit yi mi ngi cosaanoo ci ndunkuram ndiggam ba li ñuy gis ci kanam maanaam li ñuy gis ci kanam du du un dixième sax la nga xam ne mooy sidditu sëy donc conséquences yi lii nekk ci biir am problème moom mooy répercuté wu ci lii nekk ci biti léegi bu ko defee li ñuy njëkk def mooy dalal xelu nit ki léegi wax ko ne lii jàngoro comme toutes les autres maladies donc lu ñuy fait, comme toutes les autres malades, du de xamante ne ça te tient à vie yàlla ni mu doomu aadama ko bind pour nit ki am capacité ci wàllu sëy ba dem ba juróom-ñetti fukki at at gis nañ fi ñoo am nañ at ak lu di am même suñu am Ibrahima alayhi salatu wasalaam bi muy am mi 110 ans donc manam yalla dafa am nu mu gor donc fépp sa yu fofu amé problème rek ça veut dire que répercussion yenen i la wala yenen mbir yo xamantene mu ngi xew ci yaramu nit ki répercussion bi nek lolu ci de manière visible motax nit ki bu ñëw li ñëk def moy dalal xelam mais isam laaj ko ya symptôme yi mu yëg ci yaram bi ndax yaram bi dina tang ndax yaram bi day fet-feti est-ce que dafay am ay reflux gastrique est-ce que dafay constipé bu ñu defee loolu ba xam diagnostic bi xam ndax hémorroïde moo ko indi ndoxum siti moom moo ko indi infection urinaire moom moo ko indi wala une maladie sexuellement transmissible moom moo ko dal wala rap la wala xala la ci la ñuy mën a defal ko benn programme de traitement mais maanaam sur la durée en fait le programme de traitement dépend juste maanaam mooy comme si diagnostic bi liñ fa xamee parce que tey koo xam ne dañ ko takk xala xala bi bu ñu ko tojee tey suba mu mu normal nan lañ koy tojee ak ban xeeti xala la ñu dindi ko buy dañ nga gis nit ki di fonctionner normal man am na nit koo xamante ne dafa ñëwoon ci man maanaam dafa takk beneen soxna ñu takk ko xala mu ñëw naan ma ba léegi maanaam toog na weer mënu dem ci ñaare la mu ñëw ne ma ba léegi mënu maa yegg ci moom a ngi demee ndox alxuraan lañ ko jox ndox bu ñu mocc mu jël ko sangu ci naan ci ci guddi gi mën a ma sabaa loolu xam nga cest à wuute naa koo xamante ne dafa am ay antécédents au siti wuute naa koo xam ne dafa am ay antécédent wu hémorroïde donc durée de traitement bi c'est en fonction de lan moom moo waral maanaam faiblesse bi wala impuissance bi wala bokk éjaculation précoce bi li par rapport ak lii ko waral rek ci loolu lañ ko mais dafa am loo xam ne comme par exemple surtout ay faiblesse ak yu ay dysfonctionnement yoo xam ne bu la joxee garab bi en général garab bi daf nit ki daf koy jël sur un mois à deux mois le traitement mu am suivi am ay rendez-vous di ñëw ñu koy jox ay garab tout en espérant que deux mois même vous je suis à 100 il a plus de 70 de parce que ko. Ah, la sax la. Ah, mais mais seigne bi non waxuma comme par exemple euh, manam ambiance ci bir néegu sey mom moy sey googu ñuy wax c'est-à-dire tant que équilibre da fay am fofu non day gis nit ki da koy jural un équilibre psychologique émotionnel koku sax c'est-à-dire da ngay gis épanouissement bu normal ci mom mais su dul li tax may wax walu cër gi moy pour mu baña indi ay frustration dafa am lo xamné dañ koy ay frustration sexuelle manam nit ki du jot bopam wala mënul yegg fa mu bëgg yegg wala amna lo xamné soxla nako mais à chaque fois mënu ci am accès c'est-à-dire yoy ñi denc diko denc day day denc du denc dafay jég def benn feedback léegi li muy njëkk indi mooy ay problème yoo xamante ne nit ki day day du mën a gérer ay humeur am wala du mën a gérer xelam te fekk li koy résoudre moom mooy na fa la tegu ci yoon rek waaw. waaw sëñ bi nga joxe sa numéro téléphone ak euh, Patte d'Oie fii. waaw Patte bon ñi ngi nekkee Patte d'Oie Builders si corniche boor bi jëm ci booru tool yi maanaam boo déparé hôpital Nabi Choucair jël yoonu corniche bi jëm ci terrain Thiély Euh, terrain bi ñëpp xam nañ ko donc ci kaw tali bi la boo rombee terrain bi après da ngay am benn boulangerie boo rombee boulangerie bi à 100 mètres atelier mécanicien bi ngay njëkk jot ñoo jàkkaarloo ñu ngi ci bind Hijama Herbal la médecine par les plantes loolu lañ fa bind sama numéro nag mu ngi nekk 77 417 63 98 77 417 63 98 numéro buñ moy woyé woowee di ma jot la waaye des fois damay jafé jot nak du question dara waaye liggéey bi yenn saa yi koy laaj mhm. mais nak numéro bobu d'habitude mom moy numéro bi nga xam mom la gën accessible moy bima yoré sax de de toute façon ñing fi nek nak euh, tous les jours euh, du lundi au au jeudi

wala saa bu ko bëggee day ñëw defal ma émission bagage yi bari na te lii lépp lépp lépp dinañ ko génnee wane ko incha allah bu soobee di leen jox dig daje beneen yoon jaa ngeen